asalaamaaleykum àdduna bi yëpp oustaz Ahmed Diop mbëkk moo leen di nuyu borom yàlla ay kese barki bi mal xaamal ak ban gars yi kontaan naa ci zem yi kontaan naa ci abonnement yi kontaan naa ci partagé yi yëpp noonu la nag jàppaleen ci rek àdduna mu solo yéen a nu yóbbu fu nekk ci àdduna bi gars yi nag tey dama bëgg ñu waxtaan fenn ci jëmm ji nga xam ni moom la ñuy wax Samba Ka nga xam ni fan yee lëmba woon na TikTok bi yëngal TikTok bi ba àdduna fu ne koy éviter fan yi tey damaa yeewu shelmu toxoñ samay bët galax ndiku naan sama café Touba dugg ci internet bi gis ñu naan Samba Kaak ñu naan borom rang muy ndiite ndiiti rang muy jalambiitu rang muy salawliitu ñu naan moo dajji ab bitig ci li gars wax mhm. nee na moo dajji ab bitig coffre la doon jéem a jël ba nee naan kaala gam kaala woo biñ ko xoolee ba ci biir xam ni kii ki nga ni jàkk nii sàmbake la mais nag li ma ci jaaxal leen la gars yi bu dee moom ak bu dul moom gars yi lillahi wursul ak mbokk nanuy suturaal te te yàlla tax àdduna mu solo sàmb bu doon sax benn bis la bégal nanu sàmba bu doon bis la benn benn bis la bégal nanu mën bëgg faal nag li ma ciy wax leen la Sénégal de loo mën a def loo mën a def ci lu neex booba nga xaar sa bis ca xam ni bis boo juumee rek ba teg dara rek ñuus nga siiru ruux nga siiru beneen bi nag fi ma koy waxee yow Samba yow laay waxal gis naa Dakar TV ñëw ca yow ndeysaan def reportage bu am solo ci yow ngay wane say xar wane sa jakarta wane say nag wane ci li ngay dund sàmba feeral ci li nga doog am na ay pël yoo xam ne ay jàmbaar lañu ay ndaanal lañu ay bañkat lañu ay liggéeykat lañu Samba lillahi wursuli ak mbokk star nga bul yàq der pël yi am na ci pël yoo xam sàmm lañ xam liggéey jaamu yàlla jox seen ak njaboot mais sàmba ni nga doxante nii donte nag nattu yàlla la ndax suñu borom moom kuy dund ci àdduna foo mën a jaar waaw bu nammee ci yow nattu rek foog ma teg la ko sàmba li lay suli ak mbokk fa nga nekk kenn yéenewula ko waaye yàlla bu yàlla dogalee ba nga génnaat ak jàmm yeddaatal sa bopp bu baax a baax la nga doon def ci tiktok ba nga continuer bégal jaam ñi kese la rang nangam sàngam yooyu kese la mais bul dugg ci dara bul dugg ci luxuur yi bul dugg ci dara am na loo xam na buñ ko xoolee ba ci biir danay jàpp ne na nattu yàlla kese la am na ñuy profité naan pël yi nàngam sàngam déedéet gaay gars yi Sénégal benn bopp la ñun ñëpp nuu daala nuu ñun ñëpp ay mbokk lañu Sénégal barki wemal malkaama lakk bar wax ji mën naa bëri waaye buñ fi tojan bopp kenn léegi nga gis ñëpp jógandoo ne sama mbokk la kon jaay nañuy waxtaan nañuy jàppalante ca xam ni àdduna mul solo sàmbali ko dal nii nag kenn yéenewu yàlla xam na lii kenn yéenewulu ko bégal nga nu bataay yi gars yi nañ ko ñaanal bu baax a baax te ñu bañ cee wax yenn waxi ñaaw yi àdduna mul solo ndax doomu aadama kuy weer yi fi jàmbur na nga jàpp ni à bientôt rek ñu weer la ñu yar bu baax a baax lii xañ na noon la am nay pël yoo xam si ay jàmbaar lañ ay bañkat lañ ay liggéeykat lañ sàmm jaamu yàlla am na ci ñoo xam si ñoo fekk ci suñ biir ñun fekk ñu fan ñu jox nu ay soo yu bëri ak ay teraanga. kon am na loo xam si ñun neen lañu nu nu daala la na Sénégal nañ ko xool defaraat ko mais kenn ku ne yaa nga naan sàmba fële ndekete rangam gi am na lum ci di ndekete calaw mbiitum nangam sàngam kii calaw calaw ëppalam gi am na lu tax gars yi non non non non non non bu nu doxee la noonu ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax sàmba yal na la yàlla taxawu yal na la yàlla dooleel yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla aar mais foofu nga dugg nanga fexe ba bis boo génnee nag ah, li ma lay yedd leen bis boo génnee bu fa duggaat bis boo génnee la nga defoon ba yóbbu la lillahi ak mbokk teel sa loxo nga gën a liggéey liggéey wuti loo moomal sa bopp loolu dara dàqu ko liggéey ñàkk jariñ lool dara dàqu liggéey loo xam si dafa lew nga koy lekk yaag sa njaboot ci farata yàlla sunna moom ak moo neex gars yi ku xaman maanaam jaay alali jàmbur ci misaal foog alali jàmbur jaay ko lekk ko di ko dundee bàkki yobbal xaama lakk bar saa soo ko defee sooy lekk sa xel danaan lii alali diw laa jaay di ko lekk yàlla seede na ko saa sooy lekk loolu day na ci sa xel kon jaay yi nañuy wut lu ñu leewal seen bopp nañuy xool loo xam ñun ñoo koy ñàq buñ soxla alali kenn boo bëggee alali jàmbur nga dem ni ko ko baax doomu din wi lii la wur suli ak ngox nga ma nga may ma may ma lu ma lu ma lu ma aje wala nga may ma trente mille wala quarante mille nga may ma ñetti dërëm wala mille francs wala téeméer mu gën fab alali jàmbur as gur dëgg dañ ñu ngoo liggéey Samba say maam ñu baax lañu Samba Ka yow sa maam barke yow mal xaama la kabar ku baax la Samba bul dugg ci dara jàpp nañu lii la dal nattu la rek boo génnee xolaatal sa bopp na la sa baay yedd ak sa ak say jabar-jabar sa jabar sa soxna sa ñeneen sa na ci kër ga na la yedd waaye yeddal leen sàmba bu baax a baax ngay sànte yi ko yàlla na yàlla ya ña nga ama leen tan pour yoon yàlla nañ la baal sàmba yàlla nañ la jéggal sàmba foofu alali jàmbur baaxul de bu fekkante dañ la ko koosee bàyyi foofu sàmba caméra caméra surveillance bu moo la jàpp rang muy rek muy rek muy teg loxo dem ko rek muy teg loxo dem police chamba ma bàyyi loolu dégg nga loolu doxul de ma lay conseillé rek bàyyi loolu dégg nga balaa balaa yi ñu ngi siraaye bu baax kenn ku ne fi di fab du dem waaye ku ci moytul moytul yoon xam gendarmerie ngi fi police ngi fi beneen bi kaafa ngi fi beneen bi chamette ngi fi beneen bi justice ngi fi yeneen bi nag fi ñu koy mujjee tëj laa ngi fii barke bi mal xeama lekk yàlla nu yàlla mucc yàlla bu nu kenn mënal dara yàlla nu yàlla sàmm yàlla nu yàlla aar cat cham cat yàlla nu yàlla musal ci cat cham yàlla nu yàlla musal ci cat cham yàlla nu yàlla musal ci cat ak làmmañ yal na nu yàlla mu ci la lamañ wu bon yal na nu yàlla mu sël ci bët yu bon yal na nu yàlla mu sël ci ay gaaf barki bi mal xaamal waa bay nu kum ci ñun xurujukum guppoo gupp gupp fada gupp laa bañ ko ba lëfër lëfër wasalaam